kilifa gu tedd gi fi teew di Cheikh Mouhamadul Amin Baara Cheikh Souaïb di ko ziar bu baax a baax di nuyu kilifa yi fi teew yépp ñu fekk si leen ci barab bii ziar bu baax it jëwriñ ci fekk ñu jiite liggéeyu Sëriñ Tuubaa bu mag bii ci tooli Sëriñ Tuubaa yi fii ci Madrid sëñ Baara ak ñi ngi ko àndal ñëpp sëñ Ismaïl ñeeg rek ñu ngi leen bu baax a baax di leen ziar bu baax baax ci